chers internautes du Thiès Info point com ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci déglu bi ngeen ñuy déglu saa su ne di safoo bi ngeen ñuy safoo aussi ci émission fait divers ñu di indi mbir mu kéemaane mbir mu yéeme bi amoon foofu ca Dakar dakaaru Ndiaye rek te Jal Diop kii di ex-président fédération basket Babacar Ndiaye moom euh, dafa am euh, tiis bu ci tiis googu mu am nag mu boole ci euh, loo xamante ne du doy waar li ko dal moo di keroog rek bu ñuy waajal jabar ji pour denc ko. ci la benn waay rek ñëw rekk daal di ne cas portable bi ak xaalis ga mu yoroon toll ci euh, neuf cent cinquante mille francs mu doon loo xamante ne loolu xewoon na foofu keroog boobu ñuy waajal kii di aw Baba Tandian ex président au fédération sénégalaise de basketball mu doon lu doy waar d'après journal Les Échos mu doon di ko naqarlu rek parce que nee na moom jël nañu portable am jamono yu mu ko gën a soxla moo di jamono yoo xamante ne nii dañ koy woo rek ci jamono yooyu la ñu ñëw rek jël portable am boobule ak neuf cinquante mille francs CFA. ñu des rek ca Dakar Ndiaye Jal Diop nag benn waaye bu mbubboo nee na moom nag agent de service d'hygiène la ci euh, kaw loolu nag mu daal di dem dugg ci benn boutique boutique mooy boutique koñ yi rek. mu fa duggee fekku fa borom boutique bi sax waaye am na keneen ku mu fa fekk kooku moo doon jaay bu mu ko fekkee mu ne ko am nga mburu mu naan ko mburu de yoruma ko waaye tapalapaa laa yor ba mu ko ne tapalapaa laa yor eh, mu ne ko yéen léegi da ngeen di jaay mburu eh, mu daal di génnee ab carte carte bi nag mu ngi am ay nataal vert jaune rouge ci kaw loolu euh, la jël carte bi daal di koy won ci wonu carte googu rek mun na ko génnal danga war a génn dama lay dama lay jàpp ab yàggul rekk mu daal di génnee paaka bu mu génnee paaka rek ci xale bu góor bi daal di yuuxu dëkkandoor yi jigéen ñaale ñëpp ñëpp daw si ba ñu daw see nag xale bu góor bi ba mu gisee ni nit ñi dañoo bëri mu daal di daw waaye daw gi nag taxu koo yàgg ndaxte jot nañ ko jàpp bañ ko jàppee dóor nañ ko ay duma yu wóor laa koy jox nag eh, lii di policier yi ba mu eggee foofu nag police ñoom nag dañ koy dañ ko placer en garde à vue pour usurpation de fonction ak tentative de vol avec violence et usage d'armes blanches maanaam ñu ngi koy toppee rek wax fonction boo nekkut ak jéem a sàcc bu ànd ak fitna ak yor arme blanche maanaam paaka boobu mu génnee woon rek loolu lañ koy toppee mu doon na ñetti chef d'inculpation yoo xamante ne moo teggu ci kaw ndoddam beneen affaire bi nag dañuy dem foofu ca Ndar Géej Ndar Géej rek xam ngeen ne fan yi rek lu doy waar amoon na fa ndaxte ngelaw bu foor bu amoon foofu ca géej gi tubaab yi di ko ne la houle rek moo fa amoon ba tax na mu am ñeent yoo xamante ne ñàkk nañ seen bàkkan ak juróom-ñett yoo xamante ne juróom-ñett doomu aadama ay pêcheurs lañu yoo xamante ne dañoo réer maanaam ils ont disparu kenn gisagu leen recherche yi nag ñoom ñu ngi continuer ba tey loolu daal la ñu jot euh, nemmeeku ci fan foofu ca Guet ndara mu doon lu metti ndax askan yu fa yeewoo rek ñoom nee nañu vraiment euh, tiit Euh, lii am rek ndaxte uul bi moom foor na te ñeenti xale yi ñoom dañoo demoon rek napp ji bu ñuy ñibbisi nag lañ taseeg uul bi mu ngi daal di ñàkk si seen bakkan na benn accident rek bu amoon foofu su ca Jurbel accident bi nag ngi xewee la route nationale numéro 3 mooy rn bi foofu la accident bi euh, amee mu doon ab carambolage moo di ay oto yu tase rek wi nag ñetti oto ñoo tase ñoo daal di tase rek ñu créer accident bi maanaam euh, taxi allo Dakar pneu bi éclaté bi pneu bi éclaté ci la dem benoon autre l'autre sens ci la mbëkkee ki di euh, cette place bi cette place bi daal di mbëkk euh, bus bi mu amee nag borom cette place bi daa ñakk bakkanam mu am ci kenn aussi ci biir cette place bi am ci ay gaañu gaañu accident bi bu mu amee ñeenti nit jot na ci ñàkk seen bakkan ak six autres personnes ñu am nañu ci ay gaañu gaañu ci biir juróom-benn personnes yooyu ñeent ñoo xamante ne gaañu gaañu gi métti na lool. président association regroupement des transporteurs bu Diourbel moom daal dina génn rek di ñaawlu mbir mi te di aussi. di woo waa nguur gi ñu xoolaat lii di allo taxi yi parce que moom nee na ñooñu amuñu assurance te seen kayit yi am na yenn kayit yoo xamante ne amuñu ko donc waruñoo dawal mu doon nag euh, lu xam accident bu métti bu xewoon foofu ca Diourbel la beneen fee mooy kii di benn étudiant rek te université Cheikh Anta Diop Dakar moom ay ay xaritam ñoo ko agressé agression bi nag affaire logement yi foofu ca université moo indi coow li ba ñu daal di koy door ci bopp maanaam dañoo jël sabre maanaam ab euh, paaka bu mag la moom lañu jël rek daal di koy dóor euh, ci ci ci bopp far mu daanu ba mu daanoo mu nekk yóbbu nañ ko hôpital waaye muy en coma Seneweb moom moo ñu jox xibaar bi waaye ñoom lu ñu wax rek nee nañu ñoom euh, xale bu góor bi dafa wonee ni moom d'accordul ci euh, nu ñuy wéyale liggéey bi ñuy wéyal pour hébergement yi au niveau de l'université euh, xam ngeen ni instant yi rek comme orienté nañu bachelier yi dañuy nekk rek di leen di utal ay néeg am ñenn ñi ñu leen di utal ay néeg ay chambre fu ñu war a toog rek ndax ñu mën a jàng wéyal seen i jàng loolu nag xëy na moo indi euh, jiixi jaaxaw gise jaaxa bi ci seen biir uh, ba ñu ñu daal di koy dóor dóor gu metti googu ba tey ji mu li may wax ak yéen xale bi daal mu ngi en coma ca hôpital Fann bu Dakar Ousmane Sonko nag xam ngeen jiitu Pastef boobu moom dañ ko jiiñ rek uh, viol ak menace de mort fan yi yëpp uh, loolu lëmbee dëkk bi ba tax na nag levée immunité parlementaire bi nag commission ad hoc bi daal di nañ koy tenir nag ci àllarba gi rek lañ commencé liggéey bi maanaam pour mu naw déglu kii di Ousmane Sonko pour mën a lever immunité parlementaire mu doonoon seen émission fait divers di leen jox dig dajee rek beneen yoon ci beneen émission incha allah.